Euh, samedi bi passé ñu seetaan ki nga xamante ni mooy Bombardier mu doon defi MMA gàddu woon drapeau Sénégal mais bi muy dem ñu ci ba ñaanal nañ ko ñi yéene nañ ko mais mu dem bëre yàlla dogal mu perte mais bi mu perte ñu ci bay manière bi mu pertee combat bi gaaw bi mu gaaw ku ci nekk commencé nga di ŋàññi naka nga gisee combat. waaw man ni ma ko gisee mooy nit ñi nañ delloo seen xel ko quoi xam ni nit du nekk place yàlla suñu borom parce que place yàlla suñu borom moom boo fu bëggee nekk da ngay sonn. Bombardier loolu la yàlla namoon ci combat am boobu ndax bëri na fi ay combat c'est pas la première fois mu bëri MMA non yàlla suñu borom di ko suturaal musul ñàkk ndam comprendre nga tey bu ko ñàkkee noonu man pour man li waroon nit ñi mooy dañ ko war a encourager gën ko doolelaat xam nga moom Bombardier ci boppam champion la bëri na combat bu nekk kon nekkul combat yëpp la mën a gagné ci carrière am nga yor na fi roi des arènes ñu fokkati ko ci loxoom loolu dara gënu koo metti mu dikkaat jëlaat ko comprendre nga bëri naag ñaata yoon roi des arènes comprendre nga kon tey bu demee bëri ji MMA doon doomu Sénégal mu ñàkkee noonu du coobareem ndax tey kenn ñaanul yàlla dem di wuti ñu kaaw la genre kaaw boobu kon nit ñi li leen waron mooy dañ ko war a encourager gën ko ñaaxaat indiwaat ko xamal ko ni ko tey leen gën a fier ci yow parce que drapeau dëkk bi la doon représenté te c'est pas la première fois mu génn di ko représenté waaw man Sokh sa frère maa ngi lay ñaanal li des ci sa carrière ci MMA boobu yàlla boo ci amati defet yàlla na la suñu borom di defal ay ndam yu kawe kawe kawe kawe te maa ngi lay encouragé di la ñaanal lii yàlla na mujj ci sa carrière ci barke yonent bi. mais bi loolu jàllee dama gis ñenn ñi ñu ne mbëri euh, MMA boobu ñu dem di def defi lamb làmb Sénégal 2 pour cent la ci MMA. yeneen mbër yi nga xamante ni dañoo jóg pour dem defi ko ñenn ñi amuñu garde ñenn ñi seen bëre sax doyul ba ka ba dem gis nañ ki nga xamante ne mooy Ama Balde ñoo ngi koy nuyu de passage dem na signé foofu est-ce que mbër ak MMA parce que ku ne gis na ni euh, tànk dafa am ku am concu am est-ce que mbër yaakaar nga ne mën nañ cee génn mbër yi nekk Sénégal bëgg dem defi foofu MMA. mais pourquoi pas parce que tey ni nga ñëwee gëm ni tey làmb jii nii tey sama morom laay jëflanteel te waru ko yóbbu tey boo dajee woon ak sa morom fii ci mbedd mi mu saaga la ndey bugg la humilier ci mbedd mi da nga koy jaay sa bakkan. moo xam da lay duma moo xam danga koy duma mais dala danga koy jaay sa bakkan mais tey ñun lii ñu nekk nii mooy suñu métier gars yi li ñu leen ciy fay mun nañ ci suturlu ak seen njaboot te xam nañ ni mun nañ ci teg seen bakkan génn ci te affaire góor yàlla la comprendre nga moment ñi koy def ay nit lañ comme bakkan mën na ci mais ñi ci ñoom xanaa ñoom seen bakkan baaxul. gars nañ bàyyi loolu ñi si nekk xanaa ñoom yoruñu bakkan comme ñi koy def affaire góor yàlla la nañ bàyyi loolu tey bu ñu dóor bombardier mu daanu rek wala ñu kaaw ko rek ñu bugg fa jaaral di cité ay mbër yi si nekk naan dinañ ci rey mbër ak lu nekk nga koy dégg site defu ko fi ñaata ndam la ci am. rëg-rëg ñaata combat la ci tegle yàlla di ko ci suturaal muy am ay ndam benn la si ñàkk. comprendre nga dañ leen war a encourager gën leen a dolli fit gën leen a yokk jom xam ni tey ñoom li ñu nekk noonu liñ ciy gañe ñu ngi ciy dimbali seeni parent tey bu ñu toogee demuñu defi ko làmb ji taxaw mënuñoo bëre làmb gi nii kenn mënut a bëre ñaata champion ñoo fi nekk yoo xam ne heure bi daan na fekk ñu bëre bay wutaat combat pour bërewaat mënuñoo bëre nga gis un moment bi ñu la ciy fay ay centaine de millions